زوجته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هئت لك وغلقت الأبواب وقالت kii asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi fii ci Touba Fall ci mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam ci ndigalu kilifa yi nga xam ni ñoo nekk ci jotaay bi sëriñ xaadim mbàkke di imaamu raati bu dëkk bi jiite jotaay bii nga xam ni ay at yu bari moo ko jiite nekk imaamu dëkk bi jiite it kaamil yi nga xam ni moom lañuy wàcce fii ci ndigalu sunu maam Ndaama Fall ak njabootam gépp ah, ku ne xam na bis bi mooy bis bi ñuy màggal juddug yonent bi sallallahu alayhi wa suñu wax màggal yonent bi sallallahu alayhi nag euh, jàpp naa la ca jiitu mooy jàng alxuraanul karim ji nga xam ne moom la yàlla wàcce woon ci moom mu ñëw nekk ci ñun yërmande di fajuk aajo ñu toll ci jàng fukki kaamil ak ñaar mu nekk loo xamante ni nekkul hasard ndax yonent bi sallallahu alayhi wa ku ne xam na ne mi ngi juddoo ca màkka guddi fukki fan ñaar ca la juddu ba tax tey ñu koy màggal juddoom googu nga xam ne dafa juddu goreel àddina bi mu juddee goreel àddina nag loolu mooy sababu tey jii ñu def fukki kaamil ak ñaar kaamil bu nekk it sunu maam waxoon ñu ni am sababu kuñ ko yónnee mu nekk ab yoolam ba ca jiitu woon sax dañ ciy def sant sunu boroom subhaanahu wa taala ci may gi ñu fekk may ñu fekke ko def ngir yonent bi ak i saxaabaam ak mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi yëpp kenn ku nekk mu wax ñu tur wax ni nañ jàng kaamil yéeneel ko ko ñaanal ko ca kooku loolu mooy sababu kaamil yi nga xam ne moom lañuy wàcce fii ñu nekk ci tëjtale nii di xaar njaboot ki yëpp yegg si ci njiitalul sëriñ Mouhamad Dan ak ay rakkam yëpp ñu leen xaar léegi egsi nañu sànq ñu door ñaan gi insha allahu rabbi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu wa nuuru ma taronaahu bi ruuxi sajidina wa nabina muhammadin alayhi salaatu wasalaam wali arwaax abai ummahat wa asaabi durriyati wa asaabi ridwan la taala alayhim ajmain allahuma ballig fa ma xarana wa nuuru ma taronaahu li ruuxi cheyqina wa wasilatina ila rabbina cheikh ahmad bamba xaadim rasul wa ila wa li ruuxi cheyqina wa jaddina cheikh sëriñ sëriñ Masamba Mbakke wa allahuma ballig sawaab ma xarana wa nur ma tarana li ruuxi sëriñ Mamoor Mbakke Lappe allahuma ballig sawaab ma xarana wa nur ma tarana ila sayidati soxna Nogay Fall wali arwaahi abaihi wa ummaati wa azwaaji durriyati wa ridwaana wa ridwaanulaahi taala alayhim ajmain wali arwaahi wala wali arwaahi abaina wa ummahaatina wa mashaaiqina wali arwaahi jamii almuslimin wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa mawlana muhammadin xaati nabi wal mursalin subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin imaam amin ya rabbal alamin allahu akbar la ilaha illa allah muhammadu rasulullah allahu akbar la ilaha illa allah muhammadu rasulullah allahu akbar la ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar ya ali ya azim anta rabbi wa ilmuka hasbi fa ni'ma rabbu rabbi wa ni'ma alxasbu xasbi tansuru man tashaa wa anta alazizu alrahim nasaluka alcismata fi alxarakati walsakanati walkalimati waliradati walxutawati min alshukuki waldununi والأوهام الساطرة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام الله خير حفظا وأرحم الراحمين inna waliya allahu alladi nazzala alkitaba wa yatawalla alsalihina la hawla wala quwwata illa billahi alaliyu alazim hasbuna allahu wa ni'ma alwakil la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nasaluka ya rabbi amnan nasaluka ya rabbi amnan bibarakati hada alyawm almubarak nasaluka ya rabbi amnan wa naudu bika min jawri kulli jairin walhamdulillahi rabbil alamin yal na yàlla barkeel mbooloo bi yëpp kay dolli ko wér waaye itam ne waaye itam man duggee ci dëkk bi damay am mbégte ne dama am mbégte li may jëkk bu ma duggee li may jëkk a ñaan li may ñi taaral dëkk bi ñi taaral dëkk bi yal na leen taaral ñi rafetal dëkk bi yal na leen yàlla rafetal ñi dundal dëkk bi yal na leen yàlla dundal te ku fi dugg kontaan nag sagal ngeen dëkk bi de lu commencé ca seen baay ak ñi ma xam bu ma duggee kër euh, bu kër gu ma dugg rek bu ma duggee kër daan bég ni alhamdulilah ak ñu mel na moom. bu ma duggee kër Modou Fall bég ni alhamdulilah ak ñu mel ne moom bu ma duggee kër Abdoulaye Ndiaye bég ak ñu mel ne ñoom te maa ngi wax képp koo ñi ñu ñëpp nag nañu def royuwaay ci dundal fi nga dëkk masqatu ras dafa rëy maanaam fi nga fi nga juddoo dafa rëy ndax suuf si day bég ci yow loo fa def suuf si dalay ñaanal lii rek laaj ci bëggoon sànni di ñaan yàlla barkeel mbooloom yëpp ndax nit ku nekk nanga mel noonu mooy nekk sa seetu boo xoolee ñu leer rek a fi nekk ay nitu alxuraan rek a fi nekk loolu am na lu muy tegtale nag yal na yàlla nangu lépp wasalaamaaleykum wa rahmatullah حمدا لمسل لنا ودائي ومسل صفاي ودوائي من حمل لبعد بدهائي ليطفه بي عن البلاي ثم على من حيث ما سزمر يبر بلا بط وفاس بالخرل محمد طبيبنا الأكيم أسكى سلام ربنا الكريم والآل وسبي سبيل الألاي ما تجسو الإسخام صفاي أساوين يمس أو جاهي مبتغي أمن مجيب داي واستقي إليه ما من ذرل خرمزني هتار عن المترل يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أطفال لنا بجاي خير حال من الكرمي ثم به رمضان السمي يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا ومن همانا وتجاوزا وازل يا رب العالمين للمجرمين ابدا ورما وجعلهم فينا هدى وخير وكفى منا عسن وديرا واهلنا بهم لوجهك واخرهم بنا فنسلك وجميع اخوتي ونسبي في رحمه يوم السداب نسبي وجعلنا ونعوانا اساء ساخف تفل فنسقى وابلنا مكارم الاخلاق مها تهاب بلا سخاء وابلنا مكارم الاخلاق مها تهاب بلا سخاء وصل للحق من الحق المبين لقاض ما بان وما ليس يبين وصل للحق من الحق المبين لقاض ما بان وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلق لم ينع ذات جالب نيراني أو جالب العارين والحسران لم ينعني درر نار دنيا واغتصني باقي بخير زنيا ملكني ما لم يبيع عني wa qaadani baqaa'uhu bilmanni karaamati kitaabu man rafaani bihi ilal jinaani musnafaani mahaama ma tan qad naa nufuusa وللسواي ساقه تنفيسا إلى السواء نحو انتهاء الموت نهى نفوس كلها بفوت لم تنعني مقدمات الموت وقد رفعت بالبقاء صوتي موت الذين كابدوني بدل من موت نفسي ما نعاني الجدل ترسي عن الموت بقاء الله أبقاني الله لوجه الله كفاني الباقي ممات سرمدا wa bi baqaa'i yasurru ahmada nafaani walam yaduruni wala yaduruni kulli alayhi iwala tursi an il amradi walmamati baqaa'uhu aasimi min alsamati allamani bi qawdihi ilayya البيت رافعا بي المرضية لا شك في كوني يا بالأمين فيه وبالكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باخ جاءني التامين بركب سيد الخديم الحمد لله رب العالمين بن يالا fekkeloo yoor yoor bi wala bëccëg gi ñuy waajal guddig yonent bi sallallahu alayhi wa bi nga xam ne guddi gii ñu dëgmal ci la feeñe woon ci àdduna ma sant yàlla bi ma yàlla baaxee ma ñëw ci benn ci pàkk pàkk yi nga xam ne moom la sëriñ Tuubaa si Ahmad Bamba Xaadim Rasul daañ sancale yàlla sunu borom subhaana ngir jaamu yàlla ak wéetal ko mel na pàkk bii ñu nekk muy Touba Fall Mboxeer ah, ci pàkk yooyu la bokk ci pàkki Serigne Touba yooyu nga xam ne ñaanoon na ko yàlla su borom subhaana wa taala wajaal bu yuti kullaha masajida eh, pàkk bi ci la bokk ndax bu yuti la wax waxul bayt wala des fois mu tudd duyuur yi kon fépp foo xam ne rek ndigalu Serigne Touba moo soqi ko wala ku Serigne Touba defar ndigal moo soqiroo ca ka sañ ci dëkk ba ne ko demal toogal ma fee lépp day delluwaat ci kër Sëriñ Tuubaa ndax seen lépp Sëriñ Tuubaa la waaye Sëriñ Tuubaa nag ñaanu yàlla suñu borom subhaanahu wa ne ko nag sama kër yooyu ak sama buyut yooyu yëpp maa ngi lay ñaan yàlla nga defaat ko ay jàkk moom Cheikh Amadou Lamine euh, alamin ñi ngi dalal sunu mag. sunu kilifa di Cheikh Mouhamadou Moustapha moom sëñ Alaaj Baara moom Cheikh Mouhamadou Fadal moom sëriñ Touba mooy doog ak si noonu kon weer ne nag ñu doon def lépp suñu borom subhanahu taala nangu na ko jàng nañ alxuraan karim fukki kaamil ñaar moom lañ fiy jot a jàng tëj xatmu bi ñu tollee ci waxtaan ci wax jëf yi nga xam ne nag maanaam jëf yi ñu defoon nga xam ne li koy mën a yégal mooy baat yu sell yi baat yu sell yi ci lañ tolloon ndax jëf nañ jàng nañ alxuraan karim euh, li ñu war a def lépp def nañ ko li ci des nag li ko mën a yëkkat nag mooy baat yu baat yu tey foofu nga ñë foofu nga accès ilayhi yasadu kalimu tayibu wala amalu saalih yarfaahu kon foofu lañu toll noonu sëñ Moussa mii nag moo toog sëñ Moussa moom Cheikh Mamadou Lamine Bara di kilifa jataay bi di kilifa lépp ndax tey moo fi moo fi nekkal jëmmi Cheikh Mamadou taxa mat ko sëkk nag di nit ku sell nit ku oyof nit ku baax euh, képp ku bëgg yëkkati ko am rifan ca kaw fexe la làmboog tawaadon tawaadon moom la suñu Moustapha nekkee fu mu nekk ci mbooloo mi da nga man da xool ne ma nga nee waaye ñëpp a ko yëkkati ci kaw ñëpp ko bëgg ngir ngir ngir ngir ak woyofam te man tawaadon rafa'ullaahu loolu rek moo nekk ci ma léppam ak taalibi kon nga fekk ñu rek ñu toll ci kàddu yoo xam ne moom la ñu yu gàtt rek ci ndigalu suñu Xaadim mi nga xam mooy imam dëkk bi di suñu ab doomi suñu Abdu Baaxe nga xam ne seen maam suñ ma sàmba euh, moo moo moom dëkk bi mooy kilifa dëkk bi euh, borom dëkk bi moom la ko suñ Tuubaa boole woon ak moom mu nekk ci moom suñ xaadi bi ngi toog ak njabootuk suñ maam Mor Lappe gi nga xam ne ñoom lañ tudde bis bi tey seen waajur kon wëllër yi euh, alaaji Cheikh Ndama mi nga xam ne yàlla ko yàlla yëkkati jàmm ak salaam ba mu desiwaat ci liggéey bi ay njabootam gépp ngi toog nii macha allah tabaarakallah di nuyu baax suñ alaaji la suñ baara nga xam ne moo mooy moo moo moo moo moo topp ci alaaji Cheikh Ndama tey moo ko fi nekkal wutu ko fi waaye na nga fekk fi nag euh, sa mbokkum jullit mbokkum alxuraan mbokkum daara muy sëñ Abdoulahi Sall bu sëñ Abbas Sall mi ngi ni imaam imaam sëñ Abdoulahi Sall mi ngi ni toog fekk fi tamit Chérif Chérif moom ngeen nuyoo léegi Chérif ay dara ñu ngi koy nuyu baax Chérif ñu ngi lay nuyu di la jox sa cër di la jox sa wàccuwaay baax a baax baax kon tey jataay bi lépp nangu na dëkk bi nga xam ne dafa bokk ci dëkk yi nga xam ne Sëriñ Tuubaa da ko ñaan yàlla subhanahu wa taala te képp ku dugg ci dëkk bi xetuk diine xetuk lislaam xetuk alxuraan xetuk mbaax moo lay xeeñ wallahi lancim bi ma dugg si dëkk bi am naa lu ma yëg loolu ma yéeg nag moom nga yëg booy doog dugg tubaa moom nga yëg booy dugg Daaru Moxti moom nga yëg booy dugg Daaru Salaam moom nga yëg mboolem dëkk Sëñ Touba sanc wala sanc lu ko loolu nga yëg moo tax bi ñu dugg see loolu lañ yëg te dañoo teg suñu tànk rek juba si jàkk ji foo xool da ngay gis malameex maanaam li ñu naan alamaat yoo xam day wane ne lislaam kese la lislaam kese jàkka yi ngay seen jàngukaay yi ngay seen nit ñi ngay gis ñu dox ñëpp dukkër dukkër gi ñu def fas juddu laay wax bu du kese loolu loolu loolu def kon nag gàcce nga xam ne ñoom ñii nga xam ne eh, seen maam sancoon na dëkk bi ci ndigalu sëriñ Tuubaa ndigalu sëriñ Seex ma sëriñ Masàmba mooy sëriñ Tuubaa ah tey ñëw ci dëkk bi da nga xam dëkk bi dundal nañ ko dundal nañ ko ndax suuf si dañ war dundal huwa alladi ansha'akum min al-ardi wastaamarakum fiihi fastaghfiru summa tuubu ilayhi loolu la yàlla suma sama wax ci alxuraan karim te loolu saalix moo ko doon wax ay nitam ne leen sant leen yàlla mi nga xam ne sos na leen ci kaw suuf si keree leen ci kaw suuf ba pare dundaloo leen suuf si daa bëgg ngeen dundal ko waaye bu ngeen ko dundalee pare nag jaamu leen yàlla fastaghfiruhu summa tubu ilayhi kon loolu lañ gis ci dëkk bi ab dëkk faaw ñu tabax ko mënta ñàkk ndax tabax yi mooy tax nit ki mën a am jàmm tabax yi mooy tax nit ki maanaam xelam mën a dal tabax yi mooy tax nit ki maanaam pas-pas a mën a dëgër bu paree nag a mooy dundal suuf si ak ko ci jaamu yàlla lépp fekk nañ ko biir dëkk bi kon gàcce ngàllaama tey bu ngeen defoon benn bàyyi benn bi tamit am na bu manque ba léegi ndax suuf si faw ñu dundal ko dundal ko ci mbay dundal ko ci dëkkuwaay waaye dundal ko ci ay néegi yàlla néeg yàlla baa ngi nii ñuy defaraat macha allah tabarakallah jàngukaay baa ngi nii ñëpp gi ci kon sëñ bi daal ñun sant nañ yàlla loolu lañ doon seereel mbooloo mi xamal leen dëkk bi daal euh, aw maanaam aw aw aw los la ci Touba maanaam maanaam daggit la ci Touba te la nekk tubaa mu nekk fii kon daal ñi ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala ñi nga xam nag ñoo fi nekk euh, te macha allah tabarakallah di ay jàmbaar di ay jàmbaar lool ma dan Fall mi ngi nii sama ginnaaw di magu ñi nga xam ñooy xale yi di jàmbaar lool bëgg lu baax lool euh, fii mu nekk ak fa mu nekkee Ndakaar ak fépp fu mu mën a nekk léppam Sëriñ Tuubaa la euh, li Sëriñ Tuubaa bëggoon ci nit ku sell ku mat sëkk mooy ko xam day am jikkoy makaarimi axlaaq am mbañum rus bëgg lu baax te te di ko def moo nekk sëñ sëñ Dan Fall mi moo nekk ci Moodu rakkam yi moo nekk ci ñëpp koo ci gis macha allah taala gis ci moom mooy ak sell ak nangoo liggéey mooy jaamu yàlla ak liggéey jaamu yàlla liggéey li tax Sëñ Tuubaa doon wax rek wala lu xidma wala ibada maa bittu fi lay fi bu du woon eh, maanaam jaamu yàlla ak liggéey du ma fanaan ci àdduna benn guddi kon ñoom dafa mel ne li Sëñ Tuubaa doon wax ñoom dañ ko appliqué moom mii tamit saa su ne Sëñ Musaa fu ma gisee waaw góor la may wax di ma soññ di ma ñaanal lépp lu mu gis bu ma gisee ne ma lii góorgóor defal nangam kon nag ñu ñaan ci barke dëkk bu tedd bi bu laab bi nga gën ñoo ñaanal yàlla su moom gën ñëw jàppale yàgg fi ñu yàgg fi fekk mbokk yu baax yi di sant bu baax suñu xaadim imam euh, ku baax la ndax ndax nit dana tabe ci lépp waaye tabe bi gën a jafe mooy tabe ci daraja bu ko neexoon bi ñëwee euh, xat mi mënoon na ko jël waaye dañu ko dañu koo jox nañ jàngal lépp mu jox ñu ko loolu nag laa xarwa seen maam suñu sàmba nii la nekkoon ak Sëriñ nii kon kon kon noonu rek lay mën a continuer ndokk yàlla bi nga xam ne noonu ngeen ko continuer di ñaan yàlla yàlla ya guddal seen fan di ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala maam Cheikh baat bi may dugal day baatub siyaara la mbooloo mi asalaamaaleykum yàlla nañu yàlla defal yoolu nuyoo ak yoolu delloo nuyoo sëñ maam Cheikh dañoo ànd ak kilifa bi ñu ëgsee xam nañu ni kilifa ñëw na muy Cheikh Moustapha Mbacke moom alaaji Baara bi ñuy dugg dafa wax ni fii li ko fi indi mooy jëmmi sëriñ Fàllilu ak jëmmi alaaji Baara mu teg tànkam fa ñooña doon teg seen tànk muy baynal fardi wa sunani ñii mu fekk si nag danga cee wax loo xam ni yow mii wax xam naa la bu baax bu ma xamul lépp ci yow li gën xam naa ko ci yow ndax maag yow ci Afrique du Sud Afrique du sidd ay at la ci ginnaaw lañu fa bokke woon ne fa mooy li ngay dund fii mooy soññee ci lan diine ak lislaam ak ndigalul sëriñ bi dem nañu daayira taalibe yi gàttanduñu defal nu guddi keroog ba may daanu balay laajal addiye xam ne yaa ngi ci ak njub moo tax kon bu yàlla dogalee nga dellu si fii ci Sénégal taxawal fi loo xam ne doomi soxna yëpp mën nañoo àndandoo nekk ca ginnaaw ah delloo nga buum ca boy boy ba waaye Cheikh Moustapha Mbacké mii bi ñu dikkee kii ñu fi fekk way juram da doon lépp yàllaa ji xaadim mbàkke conférencier muy sëñ abdul baaxi ka ma ko tudde ma nga ne mu kàllaf la denc na waaye dañoo ànd ak nag koo xam ne Cheikh Moustapha mii lu may wax ci moom xawma ku ko xamul de mbaa ku koy dégg waaye ku ko xam ba fekk ko ëllëg baat yi may bëgg a xam di ko bëgg a wax di nga xam ni loolay dundam moom lay dund bi ci jëkk mooy ku ko miin ca këram doo xiif doo xiif doo mar doo mer doo ñàkku taalibe doo faat waxtu juróom yi mooy mandarga yi sëñ Moustapha neex àndal nag neex àndal gi mooy ki muy àndal da koy teg ci hadis teg ko ci alxuraan yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ni wala tusahib man laa yara la kama yarahu li nafsihi bu leen ànd ak koo xam ne ni mu gisee boppam gise wala ni ñàkk fayda mi ngi yem ci ànd ak ku yëgut sëriñ tubaa teg ki ne wala tusaahib xayra man bihi tuzaad diinan wa aqlan abadan tanal muraad su ngeen di ànd ànd leen ak koo xam ni day yokk seen diine di yokk seen xel mu rafet su ngeen ko defee lu ngeen di sàkku ba faw da ngeen koy am kon sëriñ Moustapha lii ko indi fii nag ci jëmm yii di waa kër Alaaji Ndaama Faal alaaji ndaama soññ na ma ba tàyyi ni ma nanga nga ñëw Touba Fall mu xeex xamante gune ye ci lan wëllëre gu mu wëllëre wante nag alaaji xaadim kon su yàlla dogalee sëriñ Moustapha mii fii bi ñuy ñëw ñu nga joge Alieu mu taxawu nagi gàmmoom nagi gàmmoom moom mii day gàmmu tey day gàmmu ñu toppatoo nag yi ba eggal mu séddale kër gu nekk la fa war a dem mu yabal ndam mu yóbboo ko fa waaye lu mu xat-xat mu bàyyi xel ni dina ñëw ci kër gi ba gisee njabootu alaaji ndaama ñii nag la Seex Ibra waxoon ni ah doom bu leen doon taalibe bu waxaale bàyyi ñu ne ko faal luy waxaale bàyyi mu ni ku dugg ci bitig piis boo làmb ñu wax la njëggate jëndoo doo sol waxaale jënd mooy taxa sol waxaale bàyyi mooy jébbalu ci sëriñ mu gëj laa gis ay at ba nga dajeeg moom fi barab naan ko ba nga ñëwee kër baay diw ca ron Dakar ga maa jébbuloon ci yow nee na boobu ab taalibe ab sëriñam du ko gane am xelam du ca ne ab taalibe day fonk sëriñam nangoo joxe addiya te fonk sëriñam di ko siyaare ñii kat li waral sëñ Moustapha mi sol aw daalam di fi ñëw wut si wu fi dara lu du seenu taalibe ak seen yar ak seen teggin waaye teraanga bu nit di wut boo demee Aliou fekk ko fa di nga xam ne moom làq na ko ba noppi ñoom xam nañ ci dara kon ci gàttal dañ leen a fekk ci biir waxtaan sëñ bi sàll ñu ngi lay siyaare dundal nga <laughs> dundal nga diine maanaam bu ñu tuddee la bokk ci sàll rek dañuy xam ni ñooñu moom njaboot sëriñ Tuubaa lañu ndax tool bi benn la kon ñu ngi daaneel suñu kàddu ci dañ leen a fekk ci waxtaan te kilifa yaa ngi toog shérif a ngi nii bu ñu ko tuddee dañuy wax ni waa kër yonent bi alayhi salaatu salaam ñëpp teew nañu ndax nooru nubuwwata alayna laa yasu tawarasat lowul fuhóolu an fuhóolu kon kii bu toogee dañuy wax ne rekk lépp baax na bu ko defee nag sëñ Moustapha moom mi ngi sant bu baax a baax sëñ daan mii ak i rakkam ak njabootu Alaaji Ndaama li mu leen sante mooy seen yar ak seen taalibe ak fonk sëriñ bi dañoo fonk sëriñ bi dama jëlale bisu fa fii mu ñëw waaye sëñ dan mi at mu jot bu waajee di dem màkka moom sëriñ bi nga xam ne fenn ñoro ko fu dul baytilaayil haram bu jógee kër sëñ dan mi lay jaar yenn fa mu teral ko ba ngoon mu soog a dem fa muy dal loolu ak taalibe moo ko mën a may wala fi nag dañu wax ne ndono dafa foor alaaji ndaama ku mu doon sa waajur ci pastéefam ak bëgg sëñ tubaa ak bëgguk taalibe ak ak lu bëgg lu baax soo amutug taalibe defoo la la war wala fi dañuy wax ne ku la ne cëppal ga laa fanaan xëy di waccu diwu tiir ne ko waxoo dëgg Casamance nga fanaan ku fanaan cëppal ga soow lay waccu inal arxat dasaat si di day royaat sëriñ Tuubaa daawul laaj ku la jur ku la yar lay laaj ku la gën ku la yar moo la gën ndokk nag bi nga xamante ni Mbàkke ah yar nañu leen ci baax ah sëriñ bi nee na bi ñu dajalee kaamil yi li mu jëy sun la 313 ci trois cent treize mille waaw moom la ñu fi dajale kon loolu ñaan gu nangu la da sëñ saa daf ma ni juróom-ñetti jikko yooyee nga daan wax na nga ko waxaat juróom-ñetti jikko yi damay wax nii baax na ci ñëpp waaye ci doomi soxna la gën ku ma ko laaj ren yàgg ma ko laajaat déwén sëñ maam Cheikh juróom-ñett yi jëmm ji tasu ci yaakaari taalibe yi waaye yow it yaa ngi ci tànk yi bi ci jëkk mooy xam-xam doomi soxna bu jàngul moo golo gu mënta yéeg ñoo yem doomi soxna day jàng kii moom siti sëñ Fallou yëpp moo ci bind kaamil jox sëñ Fallou moom jëmm ji billaahi bind na kaamil jox sëriñ Fallilou sëriñ Fallou yi yëkkati manto jox ko manto ba gis naa ko manto bu ñuul jox ko ko kon moom jàng na muy jàng kon benn ngoog xam-xam aw fit fulla doylu jom yaru jub ak am njëriñ maam seex ma firil la ko boo amee xam-xam kenn du la mën a nax jàng dafa baax boo amee fit kenn du la mën a xëbal adduna daa bari yuy xëble kuy def lu la xëbal nga ni pëccet ci ngay dëkk te ku dëkk ci du taxaw bay taxawal dara boo amee fulla kenn du la foye boo doyloo kenn mën a jënd boo amee jom loo song daaneel ko boo yaroo ku la gis bëgg la boo jubee kenn du toroxal boo amee njariñ doo wéet nit day am njariñ boo amee njariñ doo wéet dafa am doom bu ñuy wax si déem ñu bari macc nañ ko fii siddéem déem ñu bari macc nañ ko Sénégal soo koy macc loo xiif xiif del yàbbi doom ya gis nga si déem àll bu mu ne am na yoon wu fa jëm ñu koy raasi njariñ sañ cay musa tax tan doom bu rëy lay am ci buntu kër gi lay sax te dañu koy romb nit day am kon ñu déglu sëriñ bi mu def ñaan bismillaahil laziil quraan